ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen mbalu àq di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ci suñu jaamu yàlla yépp te jéggan ci suñuy bàkkaar di ko ñaan mu yàggal fi sunu kilifa gi sàmmal nu ko Cheikh mu Mountakha te yokk ak wéram <clears throat> nu dellu siwaat ci waxtaan wi nga xam ne tàmbali woon na ajjuma ji weesu te mu jëm ci buntub azaka ndax xam ngeen ne weer wi ñu nekk day weer wu njëkk ci atum jullit mu doon woo xam ne danañ ci baaxoo di génne asaka moo tax ñu di ko ci fàttali ajjuma ji weesu euh, sëriñ Fàllu ñëwoon na ci bayaan bi ci ay soññe yu ama am solo ci mbirum azaka solos génne ko waaye lori ñàkk koo génne ñu bëgg a dellu si rek mottali waxtaan woo ci lenn ci attey azaka ak lenn ci ay tegginam loolu dafa mat di soññee aka fàttale ndax nag jullit bi war nay bàyyi xel saa bu nekk li ko yàlla defal ci ay xéewal yoo xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu koo takk ndax ku yàlla bind def la mbindeef teral na la ba noppi ba mu la teralee def la jullit waaye tàggatal la li ci kaw asamaan ak li ci suuf dénk la wërsëg woo xam ne dala ca digal nga génne ci aq ju néew delloo ko ci ñi nga xam ne ñoo aajowoo loolu jullit bu nekk war na koy bàyyi xel saa bu nekk ba waxtu wa jotee mu def ko ni ko boroomam diglee fàttali woon nañ ne asaka dafa doon ponkub lislaam benn ci ponk lislaam yi nga xam ne ci la lislaam taxaw nga xam ne tey képp koo xam ne weddi nga ak waram sax dañuy jàpp ni danga génn ci diine ji bu ñëwee ci baat bi li muy tekki rek mooy ak dolliku akuk yokk akuk laab te loolu lépp buñ ko xoolee mu ngi ci biir azaka képp koo xam ne yaa ngi sàmmonteeg moom suñu borom dana la laabal suñu borom dana la barkeelal la nga am ba muy dolli ko saa bu nekk waaye nag ñu war a xam alal joojee nga xam ne asaka da caa war charte ya nga xam ne mooy tax ku ko yore wara ca génne asaka yooyu dafay baax ñu di ko fàttali dafa bokk ci sàtt yi nga xam ne dafa war a nekk ci alal ji ngir azaka man caa génn mooy ak moomeel gu mat sëkk alal ji ki ko yor na ko moom moom gu mat sëkk mooy mu ngi ci loxoom mu sañ caa soppandiku sañ jëfandikoo waxtu wum ko soobe amul lenn lu ko cay gàllankoor nga xam ne nit ki mën naa am alal joo xam ne moo ko moom waaye léeg-léeg loxoom du ca mën a yegg loolu ak gàllankoor lay doon ndax mën naa nekk foo xam ne dañ caa teg loxo ko ca teg loxo mënalu ko dara bu boobaa loola alal joojee moom moo ko moom moom gu wóor waaye nag moom ko des na ndax mu suñu suñu caa soppandiku waaye bu ñuy wax moom nag nañ bàyyiwaale xel ne loolu dañ koy wax waaye dëgg-dëggi moom suñu boroom moo moom waaye day dénk day dénk jullit bi wala doomu aadama bi la nekk ci loxoom suñ boroom a ko ca teg moo ko ko moo ko dénk ndax yàlla rek mooy ki moom moom gu wér te loolu wax na ko ci alquran wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafiina fiihi kon suñu borom subhaanahu wa taala dafa jël alal wutal ci nit mu yoral ko ko kon yow ginnaaw dañ laa dénk kilo dénk mooy ki moom dëgg-dëgg waaye nag moomeel gi tax ñuy wax ci àdduna gi ñu baaxoo nga xam ne ci lañuy ñuy samp suñu jëflante nga xam ne nit ki lam yor sañ na ko jaay sañ na ko maye euh, sañ na ko saraxe sañ na ko leble loolu lépp kon moomeel googu daal bu nekkee ci alal ji loola ab sart la ci euh, alal ji azaka war caa génn ay bokk na ci liit sart yi nga xam ne dana tax alal ji ñu war caa génne asaka muy alal joo xam ne ju ñuy yaxantu la wala ju man a juñ mën a yaxantu nga xam ne yaxantu moo ko tax a jóg walla nga denc ko denc koo xam ne saaboo boo ca bëggoon a yaxantu man koo man koo yaxantu waaye loo xam ne nit ki da ko moom ngir jëfandikoo ko ci ak dundam nga xam ne yaxantu taxu koo jóg loola bu boobaa alal la waaye alal jooju duñ ca génne azaka ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo waxoon ne nit ki jullit bi asaka waru ko ci jaam bi nga xam ne moo ko moom ba jaam di am ak li nga xam ne aw fasam la muy muy jëfandikoo loola asaka waru ca loole nag kon ci la ñuy dégge ne nit ki kër gi mu dëkkee bu dee xayma alal ja génne asaka du xayma waale kër yam dëkke du xaymawaale waale waruwaay ya nga xam ne da koy jëfandikoo kon bépp jumtukaay ak lum cher cher waaye nag jëfandiku moo ko tax a jóg bu boobaa booy seet alal ja ngay génne asaka loola doo ko ca limaale kon sart boobu bu mat a bàyyi xel la waaye beneen sart bi nag mooy mooy matum at alal ji mat am at nga yor ko am at te buñ nee am at nag loola lañ ci jublu kon mooy alal ji nga xam ne dafa aju ci wurus ak xaalis wala mu aju ci ak jur wala mu aju ci am am commerce alal joojee waaye liy jóge ci suuf moom nga xam ne nit ki lu mu bay la loola moom wa aatu xaqahu yow ma xasaadihi la borom wax saabu ñoree ba nga góob ko rek da ngaa war a daal di génne azaka waaye kon charte bi ñuy chart alal ji am ci sa loxo am at loola mu ngi dellu ci kon alal ji nga xam ne dafa jóge cim commerce wala muy alal joo xam ne feneen wurus ak xaalis la loola bu boobaa moom lañuy ñuy wala ak jur loolu la ñuy sart am at waaye alal ji na mat nisaab ndax lay tax ñu ne nit ki ku woomal la ba war a génne asaka ndax asaka dañ koy jël tu'xasu min agnaihim wa turaddu ala fuqaraihim la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam dañ koy jële ci ku amum koom amum koom nag fañ koy natte mooy nit ki am lu mat nisaab lu am nisaab mu am at ca nisaab buñ ko doon xayma ci jamono yi ñu toll ginnaaw mooy أشهد أن لا

sàtt yi tax alal ji azaka war ci génn mooy mu mat nisaab nisaab boobu nag buñ ko dee xayma ci wurus nga xam ne mooy or bi ñuy wax dañuy wax ne ci nattukaay yu mujj yi mooy juróom ñett fukki garaam ak juróom loolu ku ko am wala lu ni toll ci xaalis bu boobaa azaka da ciy war bu dee ci xaalis bi ñuy takk mooy galam xaalisu xaalisu gal bi ñuy takk booba dañuy wax ne cinq cent quatre-vingt-cinq quinze juróomi téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ci ay garaam moo ci moo ciy tollook nisaab nga xam ne boo bëggee xam nisaab kon te koy natt ci wurus da ngay laajte li garaamu wur or di jar rek bu ñu la ko waxee boo ko defee juróom ñett fukk ak juróom da lay daal di da lay daal di wax ñaata mooy nisaab loolu buñ koy buñ koy xayma ci jamono ji ndax ñu ngi nattale euh, garaamu or ci ndax waxtu wu nekk ci àdduna bi ñu ngi wax fi or bi toll dañuy wax ne mat na trent six mille fi mu ne nii benn benn gramme or loolu boo ko euh, xaymaa day daal di mat euh, ñetti million ak aslëf loolu nag mooy buñ ko dee xayma ci or waaye buñ ko dee xayma ci euh, xaalis xaalis nag bi ñuy takk bu boobaa dana gën a néew ndax or moom waxtu wu nekk day gën a walëram day gën a yokk waaye xaalis moom xam nañ ne léeg-léeg day gën a wàññiku lool sax bu dee ci ay giléem fokk mu mat faw mat juróom bu dee ci ak jur mat ñeent fukki gàtt bu dee nag mu mat fanweer kon loolu mooy nisaab bi nga xam ne ci la ñuy war a génne asaka bu ko matut day mel ne asaka du ca war ca alal ja waaye bokk na ci sàtt yi nekk ci alal ji ngir ñu war caa génne asaka mooy na doon loo xam ne ginnaaw bu say aajo yi nga munta ñàkk génne ba noppi da cay des mooy nit ki li mu war a lekk li muy war a jëfandikoo ci naan wala li muy wara sol loole bu fekkee ne matut matalu ko mënu koo matal kon boobaa lay mel ni asaka du ko war waaye kon da ngay am alal ndax bu boobaa dootoo tuddati ku woomal waaw koo xam ne la ngay am fajul say aaju yi nga munta ñàkk boobaa duñ la limaale ci ñi nga xam ne ñoo waaye nag loolu buñ koy wax dañ koy wax ci euh, la dëppook njekk rek la munta ñàkk waaw <coughs> bokk na ci sart yi mooy na alal ji bu ko ay bor euh, labal alal joo xam ne lu mu bari bari waaye yor nga ci bor yoo war a fay lu ëpp ah, nisaab nisaab la nga yor bu boo ca fayee say bor dootu matati nisaab bu boobaa alal joojee doo ci génnee asaka waaye nag bor boobu na fekk muy bor boo xam ne ak fay ko daa jot waaye bor boo xam ne da nga koo leb war koo fay ay ay ati ati at kon digg ya ñëwagut loola moom waxaale wuñ ko bu boobaa booy xayma sa asaka bor ya nga xam ne waragoo koo fay laajaguñ la ko àppam jotagut boobaa loola moom du te génne asaka nekk noonu ki yore borit ki nga xam ne dañ ko yoreel bor bor yañ ko yoreel yaa nga xam ne mënagu caa jot wala waxtoom jotagut buy génne asaka du ko du ko ca boolewaale waaye su fekkee ne bor boo xam nag yaa ko fa bàyyi boo yónnee woon ñu jox la ko boobaa day mel ne mi ngi sa loxo boobaa booy génne asaka da nga koy da nga koy xaymawaale ci alal ji kon loolu daal mooy gën a fës ci charte yi nga xam ne mooy tax nit ki bu dajee ci alalam sart yooyu mu génne ci asaka kon génne asaka jooju nag bu ci sart yi dajee dafa bari lool ay ngëneel yoo xam ne waxtaane woon nañ ko ndax bokk na ci rek lu lay dugal àjjana loola lu mat a bàyyi xel la te suñu borom subhanahu wa taala digé na ci azaka àjjana nekk noonu yërmande yàlla suñu borom subhanahu wa taala digg ko ci koy joxe asaka waaye day laa asaka day laabal ki koy joxe ci nay ak mbooleem xeeti jikko yi nga xam ne day gàllankoor doomu aadama bi asaka da koy da ko cay laabal ndax lu mel na nay nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo limaale ci yiy alake salaasun muhlikaatun la wax am na ñett yoo xam ne dañuy alake da caa tuddaale suxun mutaa mooy ak nay nañ koo xam ne daa jiital nit ki wa hawan mu taba wa ijaabul mar'i bi nafsi kon yooyu nga xam ne yu yuy alak doomu aadama la kuy génne asaka ni mu waree asaka joojee dina la laabal ci nay googu te suñ borom subhanahu wa taala dafa dig kiy joxe asaka lépp loo xam ne génne na ko suñu borom dana ko ko wutalal kon waaye nag loolu kiy génne asaka di ca am njariñ yooyu ñu wax day fekk muy moytu lu araam day fekk muy moytu li nga xam ne dafa lënt moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafay di fàttali loolu wax ne ki nga xam ne dafa bëgg am ngëneel li nekk ci azaka na fexe ba moytu lépp loo xam ne waxuñu mu araam waaye lépp loo xam ne nag ay lënt-lënt la loo xam ne ak araamam ak lewam ak daganam fesul ci yow loola nga moytu ko ndax mooy yi nga xam ne dafa lënt mu wax ne wa in turid fadla zakati lil ali fa nafsa kuffa an jamii mushkili kon loolu lu mat a bàyyi xel la nit kuy wut alal nga fexe ba la ngay alal ja ngay dajale nekk ju lew nga moytu ci lépp loo xam ne lu araam la wala lépp loo xam ne ay lënt lënt la ku dem nag bay génne azaka war nga cee bàyyi ay teggin yu ama am solo ndax jaamu yàlla yi nit ki mën naa def ak jaamu yàlla mu wàcc ko te fekk teggin yam ca war a sàmmoonteel sàmmoontewu ko ca bu boobaa farata ja dana ko ko waaye nag nangu ga ak barke bu boobaa mën naa mën naa mën naa wàññeeku moo tax e, nit yàlla yi dañuy bàyyiloo xel jaamu yàlla yépp teggin ya nga xam ne moo ca war a ànd nga sàmmoonteeg moom ndax teggin yooye bokk na ci lay jige la lay jegeel sa boroom asaka nag am nay teggiin yoo xam ne kuy génne asaka war koo bàyyi xel te bokk na ca mooy bu waxtu wi nga xam ne ci la la azaka ji war nga bañ koo yeexe nga gaaw génne ko ndax génne ko way day ware de yaa ngi bëgg ci jëfe ndigalul sa boroom waaye génne ko googee ci gaawe gi yaa day mel ne yaa ngi bëgg gaaw bëggal ñi nga xam ne ca ñoom la jëm ca loolu lépp ay teggin la yu mat a bàyyi xel ca it gaawe gi dina tax nit ki mën mucc ci gàllankoor yi nga xam ne mën naa jékki-jékki ñëw dox diggam ak génne asaka jooje kon moo tax képp koo xam ne asaka war na la bokk na ci teggin yi nga daal koy gaaw a génne mu bokk ci teggin yi boo koy génne it nga suturaal ko suturaal ko ndax bu fekkee ne ragal nga ca ngistal wala ndéggatal ndax yooyu dañuy yàq jëf ndax nit ki la muy fësal ñu di ko ca tagg mën naa am mu yëg ca boppam mën naa am mu gis jëf ja ca gis jëf loolu daf koy daf koy daf daf ko yàq sëriñ bi wax na ne bari na jëf ju màgg a màgg joo xam ne nit ki daf koy gendiku gis ko yëg ko rek jëf jooja suñu boroom du ko nangu wala yaasu billah waaye nag ki nga xam ne xam na ne bu ko biralee bu ko fésalee am na ay nawleem yoo xam ne dinañ ko ca danañ ko ca toppandoo kon moom ak fésalam eh, day doon moom ay teggin yoo xam ne dañuy sàkku ci day day day day gën ci moom mu mu mu di ko nëbbu moo taxoon euh, suñu boroom dafa wax ne wa in tuxfuha wa tuutuha al fuqara fa huwa xayrun lakum waaye nag bu fekkee ne euh, feeñal ga njariñ da caa nekk moo tax in tubdu sadaqaati fa ni'ma hiya kon yooyu ay teggin la yu mat a bàyyi xel kenn ku nekk moo gën a xam boppam moo gën a xam ci moom ndax ku mucc ci ngir sàn la ak ndéggatal wala moo gën a xam ne man mii su ma ko joxee am am na ñoo xam ne bu ñu ko yëgee danañ ma ca toppandoo loolu dana gën a yaatal njariñ li kon bu boobaa ñaar ñëpp kenn ku te ku ci nekk lëggante yow moom nga war a war nga war nga war a def teyit nit ki bañ a topp di lim aka wax ku jox di ko ko di ko ko fàttali di ko xamle taxaw bi mu koy taxaw ndax loolu mën na lay tudd ci loolu suñu borom subhanahu wa taala daf koo tere la tubtulu sadaqaatikum bil manni wal aza kenn ku nekk war na koo moytu la ngay def nga def ko te yàlla tax te bañ koo fësal bañ koo bañ koo wax waaye bokk na ci teggini joxe asaka nag mooy nga sant yàlla ci xéewal gim la defal nga xam ne boo koy joxee da nga cay yëg ak cant yàlla waaye du diis ci sa xol ndax dangay xam ne li nga yor yàlla la ko dénk moo ko moom sa farlu mayu la ko keneen ak sàgganteem xañu ko ko waaye suñ borom la soob la ngay sabab lu mu jaare ca jox la xéewal yu yaatu nit dana nit dana sabablu lu toll ne la nga sabablu wala lu ko ëpp te la ko yàlla li la yàlla jox joxu ko ko yëg xéewal googu it ci teggi ni joxe asaka la bokk ca di ko xeep nit ki lu mu joxe it man mu rëy ci mu rëy ci bëtam mu mu mu xeeb ko ci bëtam bañ koo bañ koo gis bañ koo bañ koo réyal kon ñu ñaan suñu borom subhanahu wa mu yokk xéewal yi yaatal ko ba ñëpp ñi gën a as ñi génn asaka waxtu wu nekk di gën a yokk di gën a di gën a yaatu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الحمد لله الذي أحلنا باتباع أعلم العالمين محلا منيفا ونهانا عن ارتكاب البدع والمهدفات وأمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا ونسأله كمال اليقين وأن لا نقطع العمر آمالا وتسويفا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب wa tarfau addarajata wa tuwaqi maqtallahi wa uqubatahu wa suxtahu ibadallah aksiru zikrallah fa innahu man yaslux baynahu baynahu fa innahu man yaslux ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه وهو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فحافظوا رحمكم الله على كل ما رغبتم فيه واعملوا من الصالحات ما يرفع عنكم العذاب ويطفيه نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث نبيه الصادق الأمين الحمد لله حمد معترف بما أولاه مولاه ونشهد أنه الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأن سيدنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المقتفى صلى الله عليه وعلى كل من والاه وانتمى بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه وعلى علاه أما بعد فيا عباد الله توجهوا بهممكم إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار وشمروا عن ساعد الجد للعمل الصالح قبل الفوات وبادروا بأعمال يجري عليكم ثوابها بعد الممات واتقوا الله وانتهوا عما نهاكم أحكم الحاكمين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأكثروا من الصلاة والتسليم على شفيع المخلوقات في الموقف العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الشفيع المقبول الذي جعلته واسطة في كل خير وبابا لمن أراد الوصول اللهم كن لنا في حركاتنا وسكناتنا بما كنت به لخاصتك وارزقنا يا تواب توبة نصوحا ووفقنا لما وفقت به عبادك, عبادك المخلصين وأشرق في قلوبنا وفي قلوب جميع المؤمنين أنوار اليقين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم آمين أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام أي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحكيم وذكر اسم ربه فصلى وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله لمن حمده حبنا لك الحمد الله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 سمع الله لمن حمده حبنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر asalaamaaleykum.